dalee nag jàmm ci Leral TV Leral point net tey jii suñu jàngat gi ñu ngi ko jagleel ginaar yi nga xamante ne fu mu ne nii ab wopp moo leen daal di dal ñu koy woowee grippe aviaire di jàngoro gi nga xamante ne mala yi la bëri di dal waaye ñu daal di xam ne ni ni melkat fu ne nii bari na lool ci mim réew ba ñu bari confirmé nañ ko ñoo xamante ne seen xel daa ci lool ci ni ni mel daal dinañ àddune fu ne nii moom tension gu nekk ci Sénégal gii surtout jëmale ko ci ginaar yi ginaar yaa ngi faatu benn benn te dara yu buranul grippe aviaire ñuy laajte mbokk yi lan mooy grippe aviaire grippe aviaire di ab jàngoro goo xamante ne mala yi la bali di dal muy volaille yi lu mel ni ay picc ay ginaar lépp rek lu am ab laafiki ni ni mel loolu la bari di dal waaye ñuy xam ne bu daal di ñëwee ay yaram yuy tàng ay soccake di ni mel waaye ay yax yuy metti ay put yuy metti yu am infection yu ne gañ waaye tamit nit ki du mën a sax noyyi gu baax ndax ay poumons dañuy xaw a fermer bu boobaa nga gis ñu tallaliku ñooy mënuñu dara lu dul ab yuut ba tax na jël yóbbu ci vitrinaire gi rek mooy daal de solution ba su dul loolu fan dong leen ci tekk ñoom ñëpp ay faatu naka noona yéenekaay gi di daal di xam ne gannaaw fii nga xamante ne mooy Sénégal ji gi ñu daal di gisee ne grippe bile mu ngi daal di gagné yenn gox-goxaat yu mel ni Saint-Louis ak Dakar. bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bu Saint-Louis muy Aline Badara Samb daal dina àddune depuis le 8 mars bi ñu jàll autorité compétent yi dañoo daal di alerter responsable yi nga xamante ne ñoom ñooy yar ni ni mel daal di leen wax ne virus gaa ngi fi tey tamit ci lu toll ci 580 sujets daal leen ko ramassé ca loola ba tax na ñu gën a bari fu ne lii liñ leen daal di moytu mooy grippe bii nga xamante ne daanaka mi ngi fii te itamit ñenn yi xam nañ ni seen ginaar yi am naka waaye kenn ci ñoom demul def alerte waaye yéenikaay yi wax nañ ko de daal dinañ wax ni grippe aviaire gi ak virus Newcastle gi muy tension gi nga xamante ne fu ne nii ñu ngi koy daal di yeewoo waaye aviculteur ya muy rek daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo yar ginaar ya daal dinañ noté tamit xam nañ ni mbir mi mu ngi kat yóbbu seen i ginaar yi waaye bu ñu sukkandiku ci docteur Mamadou Ba moom mii di docteur en vétérinaire daal dina àddu ana nag ban jàngoro bi nga xamante ne doomu aadama bi bu lekkee ne ginaar bu feebar lan la ko mën a jural waaye lu ñu xam ne muy moom jàmm moom lépp bokk ca waaye du loola de ndax li nga xamante ne alerte nañ ko fii ci Sénégal ba ñoom ñu xam ko buñ ci jugul bay dina wéy mbuus te itamit fu mu daal di jëm baaxul korite gii di ñëw nga xamante ne ay fan dong nga ci des fu mu ne nii ñi ñaa ngi wër wëri ginaar yi nga xamante ne dañoo feebar wala feebaruñu xamuñu ko lu ñuy daal di alerter muy képp koo xamante ne da daal di jënd ginaar ci korite gi nga xamante ne daanaka ca a gën a dox nañu xam ne nañu def attention bu baax dem seet ginaar gi ñuy jënd ndax dara dalu ko ba noppi bañ ca noppee ñu rendil ko seeni bopp ndax bu leen benn yoon nangu ñu leen di rendil ginaar yi ba noppi di leen ko congeleel jox leen ko ngeen lekk ko te alors que ginaar googa mën na am grippe aviaire gi nga xamante ne fu mu ne nii nee na gàññ ci Sénégal te mun na jur ab njëy kon nag nag ku nekk bàyyi ci xel boroom kër yi jigéen ñuy togg ñi nit ñiy jënd ñi ci événement buuxante gile bu leen wóolu kenn ca loola ndax wér gi yaram moo ëpp lu nit mën a am te kenn mënu koo jënd ca loola ñi nga xamante ni ñoom ñooy yar ginaar yi le nañ leen wax bu ñu gisee dara ci li ay ginaar yuy tayale yuut yuy daanu wala sax yuy perdre poids nañ dem gaaw ci vétérinaire ga xool lan moo leen dal te bu ñu seetloo ne grippe aviaire gile wala lu ndroog moom mën na dal benn ginaar kon nañ xam ne nañu moytu bu baax ñu bañ koo jaay askan wile balaa ñu cee jëlee lor mu nekkoon jàngatu tey jii ci grippe aviaire gi nga xamante ne mu ngi gàññi fii ci Sénégal Leral TV Leral point net di leen ñaanal koriteeb jàmm